Ah, ñu ngi ñu ngi gërëm eh, président de la république si lii mu dimbalee à ah, à ah, sénégalais yi ñii nga xam ne ay éleveurs lañu parce que c'est la premier fois mu génnee trois milliards a quelques mu ne na ngeen ko def projet ngeen jënd si ay xar ngeen dimbale population Sénégal jox tekkal si loxol ministère de l'élevage ministère de l'élevage it amul kii sambal amul kii dembale ñëpp la boole am na ñoo xam ne bind nañu projet ba déposé ba jot xaalis ministre bi xamu leen xamuñu ko kon tëdd na njaaxaanaay si financement bi li ñuy dénk nit ñi daal ku jot demal jëndi xar président lu mu génne trois milliards yi pour xar la pour jàppale population Sénégal su ngeen demee jëndi ngeen yërëm askan wi ku ñu tegal mille francs nga jaay parce que yërëm sa mbokk yi si diini la bokk président de bi loolu la fale ministre bi ñun ñu ngi gërëm aussi ministre bi lii nga xam ne moom oyofam ak suufaayam ak lii muy liggéey si askan wi parce que fii moom kenn mënu fi def loo xam ne réer na nit ñi. masque yi ñëw na à temps avec la pandémie masque ñëw à euh, gel financement aussi ñëw à temps accès accès donc nous vraiment Macky li de faire. monsieur le ministre vous dire encore ce daral là la sécurité avec euh, l'aide du commissariat nous avons été au point au point central nous sommes très satisfaits avec l'aide des jeunes de la sécurité que vous voyez ici. Ce DERAL est bien organisé et bien ficelé pour vous dire combien de fois on tient à la réussite de ce DERAL. Nous comptons entièrement sur vous, monsieur le ministre, pour que ce DERAL soit une réussite totale. monsieur le ministre, Macky bom mu ci bop Sénégal ba tey mu ngi liggéey lu mu doon liggéey Sénégal, waaye nak eh, jombul nit bu yaa ngi de dépasse denkal ku mën ku mën li nga fi def def nañu ko léegi nag ñeen ñi nga xam ne jox leen seen financement jëli leen kar loolu lan ñu ko jokkee bu ngeen ñëwee bu ngeen jaayee bu dele bi jotee fay leen yéen kat ña nga xam ne sugule leen jot bu yàlla defee kaalis bi ñaaw na dem leen jindi kar bu ngeen ñëwee ngeen jaay bu ngeen jaay ngeen delloo borom kaalis seen kaalis kaalis bi du maye du dara lépp le la ngeen liggéey ngeen liggéey dañ bëgg na réew mi liggéey kale yi liggéey kale yi dem kanam loolu moo indi financement yi ak yëpp kon nag maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant.